alors Padros defati nga sama nit defaat sañse ñëw ci bisu euh, Wally Seck dama ko mën c'est normal sañse waaw <laughs> xam nga dama modestul nag nag moo tax ngeen baal ma téléspectateurs yi ak internautes yi euh, c'est normal ñu ñëw sekk fekk si Wally Seck euh, parce que nit bésam rek la am te boo amee sa bés fonkool ko ko day tax moom mu fonk la lii dina tax Wally Seck day gën a fonk waa Sénégal lii dina tax Wally Seck day gën a fonk Padros parce que nit boo amee bésam nga ñëw jàppale ko dooleel ko ci day gën a féex ci yow parce que day xam ni kii nitam la. nga ñëw ci bésam mu nekk sa mbokk en même temps damay dégg lu bëri nga koy wax euh, lan nga gisee euh, anniversaire am lan nga koy si su ma la ko doon. sama nijaay la dama koy ñaanal di am féex ti bu rëy a rëy ci Wally yi fi mu indi musique sénégalaise parce que tey euh, bu njëkk bu ñu daan déglu Wally Ramdan la ñu daan déglu dem nañu léegi ba gis ni am na touche boppam muy fond musical am ni mu mel euh, euh, li ngay déglu li ngay déglu da ngay kontaan surtout tey ak génération bi muy àndandool di di di di leen bégal génération bi fond musical boobu la ñu soxla Wally Seck ñi muy wayal tey fond musical boobu la ñu soxla moo tax tey dañu gën a am fierté fierté ci moom di ko ñaanal suñu boroom yàlla gën ko yokk suñu borom gën ko dooleel waaye aussi euh, mu am lu kenn musta am ci waykat ci àdduna du ma ne Sénégal kese mu am ay disque door yi disque d'or disque d'or disque platine c'est-à-dire Grammy Awards lépp Wally Seck am ko dama gis euh, ñu nommé la wala yaa nommé sa bopp meilleur animateur 2019 te 2019 jeexagul. mais loolu euh, am na benn plateau bu spécial bu ñu ci war a amal euh, très bientôt am na benn entretien bu am solo bu ñu def ci Padros xam naa di ngeen ko gis très bientôt bu ko defee ngeen gën a gis lépp gis li am. animateur 2019 meilleur animateur. mais man la réew mi bëgg. ah foo teg loolu ak ku la ko jox. tegu tegu ma ko fenn lu Sénégal waxal seen bopp la réew mi ñëpp xam nga. Euh, man maay meilleur animateur atoo ma wax la xam nga réew mi ñëpp bu ñu àndandoowee bëggandoo la da ngay da ngay da ngay da ngay am jom nangoo liggéey euh, euh, nangoo sacrifier lu bari li ñu bëgg nag maa ngi koy def moo tax tey ñoom ñëpp bu ñu àndandoowee bëgg Patte Rose loolu sama fierté la. ok bonne